jënkër maam Cheikh Mbay jënkër Cheikh maam Cheikh Mbay ah lay lay la bali jàmm la waa kër maam Cheikh Cheikh Modou Kabiru laa ilaaha illallah ana soppay Cheikh Modou Kabir bàyyi Serigne Sall bàyyi ñii nii Serigne Sall. lii mu ne loo mooy te ñaloore yi Cheikh Modou Kabir moom lay taataan di waaru. di leen tànkal ci li may di leen béggal ci lii way Cheikh Bamba ma àndaloon moo gën a xam ñun ñii ku ñu àndal sopp maam Cheikh bay neel nii sa loxo ñu màggal si mii fandi laay maam Cheikh naan na ba mandi ci bëru laay waxul ci barke mbay awliyaay waxul ci barke mbay anbiyaay waxul ci barke góor yàlla lay baax yi si nga ne lu borom bi la maam Cheikh Mbay wax bi laay moo man ci bëri moo man ci jéeri moo man ci réew yi man ci diwaan yi yaa zal jalaali mooy borom bu mag bi ndambal ndamb yi moom la jox mbër mi koomi koomi koomi koomi koomi koomi maam Cheikh Mbay la ko sooti te ku xam bay jiri mbay sang yaaram dëggal nga wax ji kam yooyu dee ñi sëñ sëñ mooli te ñi ñooy booni ñoo ko soxla ñun jaam ñi bu ñu yëg ci jaani xaadir yeeg laa yi siyaare ji leen maam Cheikh Mbay mu jox leen ci mboot mi kam ña xoon mbootam ma mu ànd ak mbooloo ma jëmm jooja ku siiw la mbootam ma yaasin la kabiru daa làqu maam Cheikh Mbay waaye defar nañu takku ku fi am mbay rooti mbaa nga yor lu tuuti demal siyaare ji mbër ma mooy Ahmadou Kabir jagil ma wax la waaja am yàlla mooy waajuru Cheikh Ibrahima yi tu Cheikh bay Cheikh sama jile bay bay nañ loxo ca kaw loxo ca kaw ah ñi ci baat yom na mbootum yaasin ci yaara ki tee maam Cheikh Bay moo dem ba kokki ci lay àndul ko sooti mbay ba kuy jëm di seete mbay maam Cheikh Bay ba kuy jëm di seete mbay Seex Jara woolo maam Seex Jara wéer maam Seex mu ma fi faalu mbay sa ngi weddi falaga waja tagg na la mbay mbir mi sir la Amadou yow it defar defar yow nga mooti Isa Amadou Moussa yow nga Serigne Moussa moom Serigne Touba defar nga ku yàqu Amadou yow defar nga ku faloo ndax nga damoo Modou Fall jëriñ na wàllu maam Bamba géy na mbay Serigne Jaaj duy na ay waay maam Alaaji Samba Awa Mbaye mooy bàyyi Cheikh Moussa Mbaye la mu am ca maam Cheikh Mbaye sang yaar be loolu la wéra maam Babacar Charlo bàyyi bàyyi Samba Mbaye la mu am ca maam bàyyi Cheikh Jemba Daamu loolu la wéra Mbàkke Bayo seen may yàgg rëy bay sang la seexal leen ko may oo moo leen fi seexal seex daawuda ko kay doxal ba doom ya di ji defar mbay sëg ya ñu raw jëf ni ñoo di falu jeex na woo mu daa jërëjëf bu sànni am naa ba sax ay borom ñoo di falu la suuf ñoo di falu jeex na woo mu daa jërëjëf bu sànni am naa ba sax ay borom ñu ñëw nga ñoom dañu daan naan ci leen ëllëg bi wax sa jaar ñëw laaj la borom ñëw ñaan la falu siyaare na la loola ngay doon di leeral di la buur bi defal mu boole ko njëgal moom ñee mu àndal ku weddi wax ji jàngal yaa sa jalaali allah allah